<laughs> salaamaaleykum salaamaaleykum gaay yi naka la réew mi dajji dajji jeeg layi layi jeeg rakkam rakkam jeeg curux curuxi baay basiru jomaay jaaxaar fay ji ci fer pele gaay yi ku corriger yaa xam attachez vos ceintures immédiatement xëri la setub kocc barma bi nee la 17 6e mois 1937 à kaddu ballaa ji plus précisément ginnaaw yowmal xiyam ku corriger yaa xam ku corriger yaa fa jaay laalo gars yi damaa bëgg tey ngeen partager ma vidéo maximum de partage ku corriger sa bopp ku corriger yaa xam <laughs> non barkeen non Sénégal nag du réew de Sénégal du réew de na ngeen def ak coono tribune yéenekaay xëy fësal wala gontu fësal ci fer pele yéen a mën a fen am ngeen jàmm am ngeen jàmm ah kay Baye Mansour fay nee na leen booyi Pastef fi ay rëboo lañ gëmoo leen ko foog ngeen saraxe ñaari kiloy xorom pour xam lim leen di wax lan la. dañ doon déglu rek dañ doon déglu ba xam euh, nan ngeen ni re non non non non félicitations à toutes les jeunes patriotes gars yi attachez vos ceintures immédiatement turbine yéen a kaay yi ma ngay fenal FMI turbine yéen a kaay yi turbine bu bàyyi bugaan gay dane am nga jàmm mbaa kenn yabu la ma ngay fenal FMI ndax sànq nii rek dama mbiic war mbiic daa di seen tribune publier benn affiche nee na yaa ab journal la ni moom Baye FMI dafa weddi li Ousmane Sonko def ci état des lieux na ngeen def ak coonaam ngeen jàmm ma moom tribune yéenekaay yi moo xëy fësal ni wala mu gont fësal ni Ousmane Sonko FMI daf ko weddi ci état des lieux maanaam maanaam ponkal ma nekk FMI daal wax dëgg yàlla weddi na usmaan Sonko. ci li Ousmane ko def ci état des lieux am ngeen jàmm euh, turbine yéen a kaay yi moo xëy fësal lool te alors que Baye Turbine day fen Baye Turbine day fen ndax Baye FMI bindul binduluwul weddiwul weddiluwul na ngeen def ak coono est-ce que ngeen li may bëgg a wax Baye FMI weddiwul weddiluwul mais Baye Turbine yéen a kaay yi comme xëy nan la DIC est en cours de récercation de Baye Bougane Gueye Dany ñu ne xaaral ñu duulal Baye Sonko <laughs> wuy luppee luppee Baye Mansour Faye nee na leen booyee Pastef fi ay rëboo lañ seen première publication mi ngi nii dañoo publier affiche bi wala journaux bi sans logo turbine boobu wun ay ragal lañu ay tappet lañu ni xaaral ñu njoos ba xam goney Pastef fi nan la ñuy def nan la ñuy réagir ñu ni tekk rek di xaar ndax lu amul preuve rek baaxul ci ginnaaw boobu la waa Tribune xeeb lu ñu def daa cee ñaf logo ba lancé ni bàyyi FMI weddi na Ousmane Sonko li mu wax ci état des lieux alors que ay fen la ah d'accord ne dafa kii kon yéen a ci biir xeetu politique ba tey ah la DIC est en cours de récercation de Baye Bougane Gueye Dany bàyyi Kader retour de parquet ngeen xaaral ñu duulal bàyyi Sonko luppe day dañuy fen de dañuy fen bàyyi FMI waxul wax luwul ñoo bind seenub journal ban ko njëkkee publier ñi ma woon cee taf seenub logo biñ ko publier waatee lañ ci ñaf logo bi moo waral ñu génn nii di dajj dajj ndax lu amul preuve neexul na ngeen def ak coono ba télé bàyyi bugaan bee dañuy fen ci fer pele bàyyi tribune waxu bàyyi tribune yaa mën a fen bay turbinoo yaa mën a fen ay waay bay turbin bay pojom bay pojom <laughs> man ngaa fen nag bay FMI waxul waxluwul ngeen ñëw bëgg a duulal bay FMI ndax lan een bay Sonko hmm? nii ngeen di politique yéen nii ngeen nii lañ leen di bàyyi ah? dégg xëri ku corriger yaa xam ngeen foog ni kenn du leen corriger ku corriger yaa xam ngi bokkoo leen ci de yéen dañ leen di corriger yéen da ngeen di fen midi midi demi ñu génn leen da ngeen di dul ci fer pele ku corriger yaa xam ku corriger yaa xam ji waa waa sent yu bokkuñu ci de am ngeen ma ah? donc lii mooy seen expérience de politique professionnelle nii ngeen bëgg a yore am réew bàyyi Sonko neexuñu walla nañ ko duulal ba tax na ngeen xëy bind walla ngeen gontu bind xanaa après patriote ngeen ko bëggoon a def rek ma gis waa APR ñuy dajji dajji di partager. ci ay plateforme di partager di partager naan FMI nee na fekk Tribune moo wax FMI waxul waxluwul FMI ñi mu wut a wet di bàyyi Sonko barke yow mal jël basar ñim waaye yow waaye yéen yéen du ngeen toog du ngeen toog hmm? neen def ak coono am ngeen ma yéen mu leen bàyyi fen yéen waa Tribune am ngeen jàmm ah man de jaaxal ngeen ma ba dee man damaa mujj jommi ci yéen parce que da ngeen a mën a fen te bu ngeen fen du ngeen xalaat soxor ngeen bon ñaan siis xam nga ni lii turbine yéen a kaay xëy bind nee na Baye FMI est en de diffa diffamer Baye Sonko Baye Sonko c'est qu'il a dit sur l'état des lieux, c'est faux. Alors que Baye FMI n'a rien écrit. C'est Baye Turbine qui a écrit et Mboubo Baye FMI. Yakar nous ñun eh non non bien comprendre vous ne pas a xam patriote pas kan na patriote comprendre nous sommes juste là pour vous. lépp lu ngeen wax muy dëgg tegu ci yoonu siraatal xudaa dañ ciy ànd ak yéen mais lépp lu ngeen wax te du dëgg dañ koy teggi teg ne xamal askan wi ne li ngeen di wax du dëgg man nag xërisatub kocc bi mag ñee tax may wax sama papa yi sama maam yi ñoo tax may wax man xale yi ak jeunes yi ñoom xam na dajj dajj réew mi fi mu ne comprendre nañu ñu comprendre lay waxal mooy sama classe yaay gi saa yaay bopp ci laay tàmbalee comprendre chaque jour bu xëyee yii bu li mu wax ay seen TV mii ah ma ne ko maire dalal rek bu ma la expliquer rek nga comprendre waaye léegi comprendre na il a touché comprendre na système de manipulation bi fexe naa ba nandal ko ni ngeen ni manipuler doomu aadama yi noonu laa ko bëgg a nandale sama papa yi sama maam yi nga xam ne dañoo nekk ci internet bi seetaan tele bi te doon bàyyi ci tele bii xel. lépp lu ñu wax suba ba ngoon jot ci bàyyi Ousmane Sonko à quatre-vingt-dix pour cent ay fen la gis ngeen bii xeetu manipulation tribune yéen a kaay gont di taqal FMI ni FMI nee na euh, li Ousmane Sonko def ci état des lieux du dëgg lim ci waxit du dëgg alors que FMI waxul deful bàyyi tribune moo xëy am seen inspiration d'artiste ay xëri lañu dañuy créer di fen waye man fuma wuté yeen moy man samay création deug lay wax yeen nak da ngeen di créer di fenn ah xolal li turbine yeen a kaay xëy fenal bay FMI li rek ñaar ñaata ati kasso la ci faire pelé ñaata ati kasso la yaakar ne yaay ñun duñ comprendre loolu moo tax bi yeen ko publier bu jekk defo leen ci logo turbine ni ngeen ko publier patriote ni tek et eh, ñun on a touché pour ñun ni da ngeen di publier ñun ni tek li leen deglu xamoon naa ne yàgg yàgg di ngeen ci ñaf ab logo 15 ba léegi ñu ngi leen di déglu rek tey seen fen yi da ngeen a jël temps sax tey seen fen yi daa yàgg 15 ba tey maa ngi monte asrent di xaar ngeen ñaf ci logo bi publier ko première publication bi ñi moom cee def logo turbine biñ ko publier gars yi ni tekk waa APR yi commencé dajj dajj di di di ko republier laa ne voilà. mbatu rek nañ ci def nañ ci def logo ñu mujj ñaf ci logo bi xam nga li ñu def xeep nañ ko ñu dolli moo tax ñu génn nii di leen fenloo li ngeen wax du dëgg tey du dëgg suba du dëgg ginnaaw suba ay fen la. kan moo mën a taxaw fii ci yéen nii Baye FMI bind na ak fan la ko bind fan la ko bind fan la bind ne Baye sonk li mu wax ci état yi du dëgg fan la ko bind Baye Tribune yéen ngeen xëy dajji dajji fen nit li nii ci gratuite ku corriger yaa xam. ngeen yaakaar ne bu ko defee duñ leen di corriger dañuy cotiser corriger leen ci faire pele ku corriger yaa xam ñun la kenn dul corriger parce que état zéro faute waaye pour yéen ñi dañ leen di ba sàmba di ca demba parce que li ngeen di wax nii du dëgg arrête de faire genre leen def ak coono <laughs>